maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di kontaan trop ci teew bi ngeen teew fi ci interview bi ngeen ñuy defal ñuy préparé wu défilé 4 avril défilé bi ñu war a def euh, te ñu participer ci ciseaux d'or Rufisque kontaan nañ ci trop nag ci participation bi le fait que ñu euh, boole ñu ci kontaan nañ ci am nañ ci mbégte trop tamit. Euh, Mbawen Couture waa Aji Mbaw laa tudd euh, atelier bi tudd Mbawen Couture ñu nekk marché Rufisque Rufisque marché central rue Kounoune angle Mbao numéro téléphone 77 030 77 33 ou bien 76 662 84 50 waaw ñu ngi waaj bés bi nag euh, ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax bëgg préparer ñëw wane li ñuy liggéey daal pour ñu xam ko bu baax a baax gaa nag dañuy door mais daal bëgg nañ euh, wane liggéey bu baax euh, cercle Maurice lay amee cercle Maurice Gueye à 19h ñu ngi woo ñëpp bëgg nañ ñëpp ñëw teew ndax stylistes yi bari nañ fa ñi ñëw pour présenter te bëgg nañ ñëpp teew pour xool ku ci nekk façon liggéey bi ngay liggéey ñu xool waa Rufisque lan lañ mëne waaw loolu daal la bëgg. baax na yaa ko bëri man